dafa am ko mos a nuyu loxo yi wow ko moom rasulullah ndeysaan waa ji bi mu koy nuyu mu ngi bañ pour gaañ yonent bi yonent bi ni ko nikk ne ko loxo bu wow bii la yàlla gërëm ndax dafa wow ci liggéey pour jëriñu ay di gis ponk Sénégal ponk lu jeeg buy ñëw di ñaan mille francs mille te bu fóoti woon rek bu fóoti woon ñu fay ko journée 4000 francs mu tedd waaye pokkalum jigéen mu fekk Sidi Maxtaar Kunta ñaar ko 1000 francs bu Sidi gàttee xel may ko 5000 francs fanaandoo maa la ko wax il faut dire la vérité yonent bi nee na yaddul ulya xayrun min yaddi sufla yonent bi nee loxo bi féetee kaw di joxe moo gën bi féetee suuf di nangu ñun ñu def ko honneur kër gi bon ñëpp di liggéey non aw ma dama liggéey aw ma liggéey du lay na nga seet loo def alxarakatu baraka yonent bi nee na bu yëngu am barke moo tax yàlla ne waxul wax leen ne neel gaa ñi i'malu nañu liggéey nañu liggéey nañu liggéey mu ne suñ liggéeyee fa yaram baabu man yàlla xel si naa gis li ñuy liggéey amalahu mu ne su ma ko gisee wa rasuluhu dinaa ko présenté yonent bi sallallahu mu ne bu ko yonent bi gisee wal mu'minuuna dana ko partagé ko mu ne jullit ñi gis mu siiw mu ne la ca gën a neex nag wata wasatura tuuna danaa leen delloo fi man yàlla ilaa aalimil ghaybi ci ki xam li fàddu te ñëwagul wa shahadati ak li présent teew man yàlla maa ko xam danaa leen ko fay ñun nag gëmuñu liggéey sëñ Baye Abdou dina koy wax mu ne balaa maa dee ñu xaalis duñ ko liggéey dañ koy lijjanti mu ne fu mu liggéey dañ koy lijjanti mu ne loolu looloo ba foofu moom dañ koy lijjanti pour mu génn ci kaso mais c'est c'est c'est douloureux Sénégal dafa métti dafa métti léeg-léeg damay waxtaan nag am ko ma ne yow looy liggéey ma ne ko booy nag maa xamul man li may liggéey xamoo ma ne ko boo ma xamoon maa la gën a liggéey foofu ma ne ko damaa wax ba wow benn à mon âge billaahi wax ma tax a wow dafa salaatul faatihi wax moo ma tax a wow ñàkk lekk gi moom kooku seen habitude man boo gisoon sama ndey séeréer bu ñuul la bu yegg ca kaw dëkk suuf xam nga séeréer bu ñuul moom ñëpp xam nañ ne séeréer sama yaay moo ma suuf moo sama baay moo ma sut moo ma ëpp gën maa xees pecc moo gën a xees Abubakar moo dafa weex tàll kon man sama waay bi fu ma ko doon ne waru ko doon ne ndey waru ma ko doon ci baay kon yaa kenn ku sut wax rek wax wax suba wax ngoon wax Sénégal ñëw Europe di wax ngeen ne du ma woo danaa woo man ko beneen bi mooy wax sama métier ndax yàllaa ma sant pour ma wax ci jëmmam ji rek ah ko beneen bi ci des mooy su ne maa ngi fay dóor bu ma damay jaay yi oto de parking laa yor di ay oto ko fi mu ne boo ma commandé woon léegi balaa 48 heures ma indil la oto bi nga bëgg ma ko beneen bi ci des maa taxawal bi ci wàllu sant maas bi xam na li ma wax moo tax léeg-léeg nit ñi gis ma may dawal yenn oto yi ñu naan kii fu ko mais ba ah, ma koy ñàkk dañ ko fekk moom mooy sama liggéey dama koy jaay ah waaw lu wolof di wax maam day bànneexu du la wala déet maam day bànneexu buy xalam ci jaay du barke di yaay borom man oto bu ma wax boo ko gisee jaay ñeenti fan gisaat ndax ku ma ne ah sëñ bi bii na ma ne la day jaay billaay wàcc na day jaay de ñaata ma ne bu ñuy jubóo rek ma jox la carte d'identité bi nga fay ma dem dara waaw business la waaw nit dafa de war muy yàcc rek li gars yi di wax toog muy dox fu mu am àjjana dong la toog muy dox àjjana rek la amul fenn boo dégg maa ngi toog muy dox am na ko muy gaañ. waaw ah, waaye yow tam loolu dafa mën a nekk maa ngi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn waay bu ñëw ci moom ne ko diw ku mën a jaamu yàlla la fajar jàkka ja tisbaar jàkka ja timis jàkka ja gee jàkka ja lépp jàkka ja fa lay nekk bañ tëj jàkka ji mu ñëw toog mu ne ko ku koy dundal ñu ne ko diw mu ne moo ko ëpp ci yàlla ca yàlla waaw kon nit ñi nañ delloo si waat sago yi te am jikko am jikko ba ca gën a rafet yonent bi nee na ëllëg lay dugal nit àjjana amul lu ca dafa wax ni Laxdari téere bu gàtt la waaye ala jëbra si daan wax ne moo nekk nii jërëjëf ca moom Pape laa waxoon ne ko na ma utal Laxdari balaa bu da mu ci ma ne waaw de bëgguma woon yii waaye yii de jaral na ma ko nag ma am ko moom ndax nee na ndekete téere yëpp xam-xam nga kooku koo daa maa ngi jógee suuf paree bu ma mu ne ma nekkati téere yëpp mën nga ko cee def mu ngi nii def ci laxdar bi pour moom yenn baat yi laa ciy jël Cerno Yaxya bi waaye waaye ñëpp dégg nañ fu ma waxee dugg nit yàlla bu mag boobu ñu ngi yoroon daayira boo xam ne 92 93 94 moo doon daayira bi gën a rëy Dakar ndax boobu mat nañ 1000 personnes. bu ñu daan ziyaare ji Oustaz Malick Guèye ca Thiès ñu bari xam ne bu ñu ko daan ziyaare ji boobu sotoraak moo am fii lu sotoraak bi doo xam fu muy bokk la oto yu ndaw waaye daayira ba xëy na tas ndax yi may wax nii rek ñaaw jikko rek benn membre desatu ci ca lañu cat na Yaxya li waxoon ne su ngeen bëggee daayira bi dox saa yu ngeen daje balaa ngeen di waxtaan dara nangeen ngeen waxtaanee bopp laxdari mu ne ndax man ñi daan nañu wax ni muqaddima laxdari bopp bi ku ko jëfe ñeent fukki guddi nekk wëri yu kaamil alaaji Abdou Aziz la nangu ci gémmiñam mu ne Seydul Xaaji Maalik moo daan wax ni ku bañ tojalu ko ne tàq la doo am koo yónni ki nga uuf dana la yàlla may borom kër may la ku mel noonu ko ndeyam uufee li muy kabine ci kawam di tuuru ndox ci kaw su ko ndeyam bañee du am ku mu yónni looloy tojal moom la Maodo daan wax ne ku bañ tojal yi ko ne tàq la doo am ko mu yónni ñu ne ko si loolu mooy lan mu ne ku bañ xam-xamu lax doo am xam-xam te léegi ñu ko bëgg a banaliser bëgg a wax ne laxdari du xam-xam bëgg a wax ne asmaa yi du xam-xam bëgg a wax ne duruusul awal du xam-xam bëgg a wax ne sax lisaana du xam-xam waaye ngir yàlla bu yooyu bu dul xam-xam luy xam-xam luy xam-xam ibnu Aashir yooyu yëpp ñu ngi koy contesté lii laxdari nag bopp laxdari maa ngi ñaan sax ramadan na nga ko ci booleel xale yi gannaaw damay wax ne mag ñi moom tëj bi tëj xam nga luy mooy koo xam ne kàng gi wow na dara mënatu ci dugg xanaa leen rek am xaalis koo ci ne am xaalis bu ne la indi téye ko nag ba mu dëgër waaye am xam-xam dara du dugg te mën nañu comptabiliser quarante mille euros léegi wax la fañ koy dugal ak fañ koy génnee waaye sa bis maanaam bi kala àlla quarante jours du ma ko ah ni tamit loolu lax dare nag jayul kenn muqaddima bi képp ku ko mokkal mag ñi ne nañ ku ko mokkal def ko argument di ko jëfee ren di nga nekk waliyu kaamil ci góor ak ci jigéen xam nga lu tax jikko yi rafet yëpp fa la ko dugg jikko yi ñaaw yëpp fa la ko dugg nga seet nag yéen rafet nga topp ko yi ñaaw bu amee benn bu nekk ci yow nga seet benn remplacer ko benn Alaaji Abdou Aziz nag daan na wax

kenn dootu ko jël ci man maa la ko wax man sénégalais la waaye yéen a ma xam li xew da ngay dajale fii sa alal yóbbu ko Sénégal jox ko kenn mën a ko tuŋaañ tëdd ci di la wax yu kenn xamul dëgg la wala du dëgg ah dëgg la wala du dëgg xaaji dama daal dëgg la xam na li may moom nag bokk ci donte moom xam na man xam na waaye moom ba sam bokk ci loolu entre parenthèse laa koy def li lay war nit ñi niñ mën a fenee man damay jaay ay oto ba fi may waxee yow nii maas gis na oto yi may jaay gis na waaye léeg-léeg nit day wax a wax a wax ba wër la nga ne kii suba lépp sotti nga annoncé ne suba mu sotti doo ko gis doo ko dégg kon nit dafa war a a jikko borom laxdari nag jikko yooyu la indi maa ngi ñaan xaaji ramadan loo ci mën même mag ñi jigéen ñi laa ci gën a yaakaar si ngeen seet benn bés boo xam ne di eh, ngeen mën a dajee moom mu duggal leen tuuti ci bopp laxdari ngeen yóbbu wallaahi ku ko ci mos doo bay gis na jikko wolof moo ko fii mooy ji ko gerte ji ko dugub ji ko mango bi ji ko koko bi ji ko orange bi ji ko yaa ko ji waaye fekk saxagul moomoo mooy jikko fekk saxagul nekkagul jikko moo tax nga gis kuy muuru di muuru di muuru dam yàgg mu xawee jikko baa saxaguloon dëgg la wala du dëgg ñu ah tàngaay bi dama cee soxla waaw bismillah nga gis xale bu góor boo xam ne jàkka jënd dëkk jàkka jënd dëkk jàkka ak a baax ak a baax nga xëy gis ko ca làmb la billaahi maa gis oustaz boo xam ne moo njëkk a def xasida ci man man mii toog di waxtaan ak moo njëkk a bind xasida ci man oustaz mokkal alquran imam keroog bi ma ko njëkkee gis ci ci ci làmb ji mu yor cumbukaay yi benn mbër dama ci ma ne waaw kii du diw ñu ne ma ah, saa yi ci làmb ji léegi de ma taal sama oto dem ba këram ne ko diw yow laa gis ci làmb ji mu ne waaw ma ne ko lu xew mu ne ma ci mën ne ko jazakallahu xayran teg fii daal keroog laa ko gëj a gis mat na 15 ans tegaatuma ko bët ba fi may waxee yow te mu ngi Sénégal maa ngi Sénégal. ndax dama ko bëggoon dimbale rek mu ne ko waaye daara ji dama cee yàgg gisuma ci dara ma dem seeti bi ba léegi mbër moomu buy bëri mooy yore jumbukaay waaye taxagul mu am ca dara wallaahi taxagul mu am ca dara wolof nee na ku yàgg ci teen baax fekk na fa mbaax fekk saxagul ci yow yàlla adopté bu ko recevoir bu la tuddee bu la bu baax day sax ci yow nag yàlla door naa tuddee bu baax ki bu la ko tuddee ba noppi nag door laa recevoir laaj la loo bëgg waaye billaay balaa am wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi was samaraati wa bashiri alladina wa bashiri sabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun la min america wala min angleterre wala min faransa wala min arabi saudia wala wala wala wala min indillahi yàlla neen danaa leen nattu afa xasibtumu an tutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina na da ngeen foog ne dama leen di bàyyi rek ngeen naan gëm naa gëm naa gëm naa ma la testé du ma la xool du ma la defal épreuve ba li nga naan naa dëkk ci yow wala déet a xam sa waaye dama lay def jox ay épreuve soo ko at waaye fokk nga at mi loolu nag jikko moo la ci yóbbu jikko yu koy nag moo la cee yóbbu pour nga wax ak yàlla jikko yooyu nag la borom Laxdari tànn sekk ko indi ko ci téere ba ci gën a garaaw nag mooy fet entre parenthèse Serigne Mansour taaw Serigne Cheikh léegi-léegi koy waxtaanee ci wàllu mu ngi fii Europe 99 da ngay gis bàyyi Serigne Cheikh. ba muy ñëw man dong bokk naa ci ñi wax waxal ko ndax sama conférence gàmmu gii may def booba conférence la ci la mujj ñëw keroog moo def waxtaan bi moo imaam maam góor topp bi mu ne ma fa la waxee woon wax bii may wax ba la ma ne Chérif man damay tukki te loolu ma ñëwaat wala dana yéex ma ne ko taw li ma jikko yu bon yi ma gis Sénégal jarul ko naa dem ci tubaab yi ñoom am nañu jikko kenn génn mu ko ngi fii te kenn mën mënu laa wax fu mu nekk ci Europe kenn mënu la ko wax booba dafa nekk mu ne dama ko woo ba ko téléphone ne ko góor ñi génn na àddina mu ne ma yéen a waaye man ñàkk ko ndax yow lay bokkal ndey ak baay moo def man maa ngi lay gis doy na ba léegi dem ba fi may wax ak yow dem Sénégal mu ngi fii kon France gii toog fa la waxee woon ne jikko bi ma gën a bañ ci Sénégalais yi moo di fen mu ne te fen la yàlla gën a bañ mu ne te fen li tax mu garaaw

mu ne mag ñi yàlla baaxal ñëpp dund nañ beddee seen kotaal lu bon mosuñ ko laal seen kotaal fen mosuñ ko lu baax li rek mu ne nag boo fenee sa kotaa dem jeex dugg nga soxla doo too bàyyi fen ndax kotaa jàmbur yi lañ lay jox dañu ko fen <laughs> te loolu mooy fenee sa kotaa dem jeex quota jàmbur yi dañuy jël di ko jox nga di ko fen parce que fen mënul ñàkk te yaa am fen sa bos benn jeex ñu dina jox quota jàmbur yi ngay fen rek. moo tax Serigne Cheikh Tidiane si nettali na ko bés bii eh, day jeex na ba pare. mooy sëriñ Cheikh ne ko lu mu ne ko waaye mbedul xulle moo faatu démb sëriñ Cheikh ne ko innaa lillaahi wa innaa ilayhi mbëru mbedul xulle mbërum làmb la woon bu newoon Sénégal siiw mu ne ko ah mbedul xulle lu mën a faatoo te nit ñi yow ñu mu ne ko biñ koy rob yi jàpp naa ci jaat ji sëriñ Cheikh ne ko ah kon yal na ko yàlla yërëm balaa ñoo day balaa ñoo dàqali koo ñu defal ko doog bon Serigne Cheikh ne billaahi matul 15 minutes Médoune Khoule nuyoo matul 15 minutes Médoune Khoule bi mu doon wax ne moo dee Médoune Khoule nuyoo mu ne ñëpp mu xoolal mu ne Serigne Cheikh ne ko mu ne fat mu ne Médoune Khoule ne ko mu ne Serigne Cheikh jékki-jékki ne ko waaw moom jékki-jékki bind na maa bàyyi àddina Serigne Cheikh ne ko bawoo de àddinaa la baax ndax soo noonu teel a rek ma yaakaar ni ñëpp yaakaar ni école la da nga ko dégg comme ñëpp waaye maa téye ci jaar ji da nga fàtte ne preuve la ne ko maa téye ci jaar ji da nga ne preuve la xam nga da ngay fen fen nga fàtte ne bii fen am na loolu moo bon ci fen moo tax fen mooy bàkkaar bi gën a rëy benn saxaaba dafa ñëw ci yonent bi boobu tuuba ko ne ko sa diine jiite mu ne ko bul ne sama diine ne diine yàlla mu ne ko waa diine yàlla jiite bëgg naa cee dugg waaye man damay fen di naan sàngar di njaalo di def lépp yonent bi ne ko waaw kon bàyyil fen rek yi ci des garaaw li ko te piégé na waaye ñu de ma sàccee ma yonent bi laajee ndax lii maa ma ne ko déedéet kon fen naa naa ko bàyyi dem na ca daw si ba tëjoo moom ci bëgg a jëflanteeg moom ah man bu ma jëflanteeg moom bu ma yéen bi laajee ma ne moom fen naa jëflante wu ma moom kon fen naa naa ko bàyyi dal ubbi néeg ne ko demal li ma la joxoon may naa lu bëgg a def rek xalaat ne bu ko yonent bi laajee rek mu waaxu te si yonent ne ko yow mi yaa ko tey xam nga ne fen yu ma tere moo tax ma ñemewu maa def ci des kon ku ci bàyyi fen dëgg kon ñaar laa leen di bàyyee mooy man ak ñun ñii dem lu ñëpp à travers le monde maa ngi dënkaate lu métti métti nañ def lu yonent bi wax qulil xaq walaw kaana murran waxal dëgg donte da ngay dee qulil xaq waxal dëgg walaw ala nafsik donte dëgg ji ci sa kaw la dal dégg ngeen alaaj Abdulaziz yàgg ko wax ne yaa ayyuha alladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum awil walidayn wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fa allahu awliya bihima ca la waxee woon ne maa ngi leen di wax yàlla nee na eh yow Abdoul bu yett dëgg jógee dal ci sa kaw bopp bi teg ko ci bu dee bopp Safiyatu teg ko ci bu dee bopp Alaaji Maalik teg ko ci te wuñ wëññeeku rek suuf nekk doom bu dee nag koo xam ne danga ragal ne yor na wërsëg boo xam ne boo ko waxee dëgg du la ci yàlla ne bul doyadi maa yor wërsëg yi rattax ko ko rek te deseeg ma ma jox la li nga bëgg jeex li mooy dëgg kon bi jëkk bi ma leen di bàyyee bàyyee ko sama bopp mooy dañuy wax dëkk wa kunu maa sadiqin na yàlla wax su ngeen di ànd waxul ànd leen ak xam-xam yi de ànd ñi dëkku ànd leen ak ñi dëkku tey wax dëgg beneen bi moo di muñ ñaar yooyu laa dënk sama bopp dënk leen bu ci kenn àddina jaral la wax lu du dëgg bu ci kenn teraangay jaral la wax lu ci kenn jaral la lu mën a doon ci kaw suuf day jeex te neex na du jeex na ñuy wax dëgg fu ñu toll na ñuy jëf dëgg fu ñuy toll nañ àndante ci dëgg di jéggalante suñ ko defee rek pénc bi neex yàlla gërëm bi may jeexalee nag bi ci gën a kii gannaaw nag bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ak alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad xaatimi nabiina wa imam almursalin awalu ma yajibu ala almukallafi tasxihu imanihi summa yaarifu summa maarifatu awalu ma yajibu ala almukallafi tasxihu imanihi summa maarifatu maa yuslihu bihi fardu aynihi ka ahkaami salaati wa wa tahaarati wa siyaadi wa yajibu alayhi an yuxaafida ala xuduudillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi wa yatuubu ila allahi wa yatuubu ila allahi subhanahu qabla an yasqata alayhi wa shuruutu tawbati annadamu ala maa faata wa niyatu ala alla yauda ila zanbin fi ma baqiya fi umrihi min umrihi wa an yatruka almasiyata fi saatiha in kaana mutalabbisan biha wala yaxillu lahu an yuaxira tawbata wala yaqulu xata yahdiyani allahu fa innahu min alaamati shaqaa'i wal xislaani wa tamsil basirati وتمسي البصيرة ويجب, ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه وغير حق وتخويفه في غير حق شرعي ويجب عليه أن حفظ بصره من من النظرة إلى الحرام ولا يحل له an yanzura ila muslimin bi nazratin tuusihi illa an yakuna fasixan fa yajibu fa fa yajibu hijranuhu wa yajibu alayhi xifzu jamii jawaarixihi mastataa wa an yuhibba lillahi wa yublida lillahi lahu wa yarda lahu wa yabgada lahu wa yaamuru bilmaarufi wa yanha anil munkari wa yaxramu alayhi alkadiba li ma la waxee fen wal xiibatu mu ne nañ bàyyi fen wal xiibatu ak jëw wal namimatu ak ràmbaay wal kibru ak rëy wal ujbu ak yéem sa bopp naa ko mooy je c'est moi je fais ça je fais ça c'est moi je fais ça naw sa naw sa bopp te dafa ko mën nag su dul man dara du dox daa mën a kàcc boo dee nag léppay taxaw moom tamit nga kàkk sax du taxaw danaa bu dul man da dara du dox daa mën a kàcc yonent bi gën ñëpp dem na lépp a ngi dox sëñ Touba bi gën ñëpp dem na gannaawam tey mu gën na leen Touba tey la gën a rafet wala déet Alaaji Malick dem na tey Tiwaawan gën a nekk rasulullahi Pape Samba ni ñuy jógee foofu yaa ko tey la màkk Medina dana rafet ak màkk yow tuuti doo dara xëyoo gontoo naan bu ma ci génnee du dox yaa mën a kañ day dox ba doxaatoo nañ gëm yàlla rek kenn yorut mbiru kenn ko dut yàlla su ma a bàyyee nga torox waxoo dëgg boo dee nag day dee ànd ak yow waaye yow nañ bàyyi waxi caaxaan yu moo tax nag borom diine bi insisté ci nañ bàyyi yéem suñu bopp nañ bàyyi wan kib lu rëy rëy baaxul fa lillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamina wa lahul kibriyaau fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim damay wax ne képp ku naan pour toilette nekk rëy warul képp kuy xëcc charge rëy warul képp kuy xëcc charge rëy warul képp koo xam ne boo toogee ba mu yàgg ne ana toilette bi rëy warul képp ku am soxna wala nga am jëkkër moom rëy waru la ndax dungu àdduna rëy la waaye dañ waxante dëkk waaye boo gisee yàlla may ñu ñu ami soxna pour gën yéen baax baax baax sax lu ñëwee ne lii lañ ñu dégg incha allah ne ñëpp nañ ko jàpp dem leen ca suratul baqara nisaa'ukum harsun lakum فأتوا حبسكم أني شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين xam nga du mu cëru yàlla maa la ko wax moo tax képp ku am soxna rek yàlla bég na ci yow képp ku am jëkkër yàlla bég na ci yow ndax rëy genn wàllu rëy jeex na ci yow mooy summeeku nga te set wan yàlla ne ko du ma dara nii laa fi ñëwee woon ku ko waral ki ma boole te ki ma boole ci ku ni moom laa jógee ifaadatika minka ilayka suñ jawhar bi su ma ci duggoon léegi àddina tukki man si si yooyu a ma yooyu doxal àddina te li may wax da ngeen mos a gis kurus bu ñu ko wér di

alhamdulilahi tariqa yi tax kon nag su ko defee ah mu ngi nii war na batu ak rambaaj bu déwénee bu soobee yàlla dinaa leen wax rambaaj musiba bi mu mën a ñëw wal kibru ak rëy rëy moom moo yées nit yàlla yëpp d'accord nañu bàkkaar bu ne nit mën na ko def ñu jéggalul la yàlla yàlla jéggal la bépp des rëy bàkkaar bu ne nit mën na ko am ñu yéegal la ci yàlla bépp des rëy rëy yàlla ne sama mbubb nag ko sol ma fudd sa bi moo tax pour ñu jeexal wal ojbu ak yéem sa bopp wa riyaabu ak ngistal wa suma wa sumaatu ak ndikktal wal xasanu ak kiñaan wal buxdu ak mbañeel wa du yem fadli alal xayri foo yaa xam ne yaa dëgg billaay lii la ñuy lii la ñuy firi déwén ba pour nit ñi mën a xam donte li ma ci joxe joxe sax li ma bëggoon yëpp yàlla xam na waaye li ma bëgg daal mooy bu déwénee yii ñu xool ko ñu waxtaan ci firi ko ñun ñëpp ñu ngi ñëw moo tax gis nga yi buñ ko bàyyee rek jàmm am ñun ñëpp ñu yegg ci yàlla wa ak piis wal hamzu ak reggae jigéen ñee ko moom dañuy jot xam nga lu tax soo di wax ba ñëpp ñëw kenn dugg si <laughs> bu joxee gannaaw rek bu demee nga ne moo xanaa moom ba ki ko puudar moo ko waroon a may yooyu mooy mooy lamz ak hamz yaa ngi wax te say bët yi wax ak say geste yàlla ne bëgguma ko moo tax mu ne waylun li kulli humazatin lumaza alladi jamaa maalan wa addadahu yaxsabu anna maalahu axlada kallaa layunbazanna fil wa maa adraaka mal hutab naarullaahi l-muuqada allatii tattali'u ala l-af'ida naarullaahi l-muuqada allatii tattali'u ala l-af'ida kon nag mbokk yi yàlla ñu yàlla defal sutura ñu ngi leen di jéggalu lépp luñ fi wax incha allah Pape téyel ma fii bu déwénee incha allah dama bëggoon ñu dalee ci wayajibu alal mukallafi xifdu lisaanihi xef lu lisaani bi jàpp leen yéen ñëpp foofu laa bëgg ñu dalee ko déwén yal nañu yàlla may ñu fekkee ko xam nga lu tax làmmiñ mooy musiba bi gën a garaaw te yonent bi nee na këpp sa xar kanam ëllëg ca safara sa ngóobi ci làmmiñ ci war na ci jullit mu téye te bu mu ca wax lu ko bu mu ca ŋàññi am kon yal nañu yàlla defal suñu bopp yal ko fekkee déwén yàlla bu ko kenn wuti maa ngi jégalu ñëpp su fekkee wax naa bi mu dérangé wu maa ngi koy jégalu su fekkee wax naa bi mu choqué wu maa ngi koy jégalu su fekkee wax naa fi loo xam ne waxuwul maa ngi koy jégalu te ngeen xam yéen ñëpp ne in uridu illa al islaaha mastata'tu waaye bu dëgg yemle may nag caaxaan dem dëgg des wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tabarakallah jërëjëf sëriñ bi jërëjëf kontaan nañ liñ ñaanoon daaw rek liñ ñaanal mooy yal yàlla muy dégg ak topp sa barke maam yooyu yal yàlla saxal la yal yàlla yokk sa yàlla dënn yal na yàlla saxal leen tarifa seen ci barke yonent bi waaw joxe benn information rek bu tuuti parce que yow bëggoon ñu fi ko wala jox ko ci mbooloo bi defal ñu ko waaye avant boobu rek ñuy wax ni suñu mbokk mi euh, moniteur la boo xamante ni si dafay yóbbu ay nit Màkka képp koo xamante ni am nga projet aj wala projet umra dafa fàtte indi flyer mais bu la intéressé rek incha allah wax ma ko dinañ def ay pexe ba nga jot ci flyer yi wala nga mën a jox ko ak moom te mu koy def nag ci prix yu jàppal na macha ak ay conditions yu baax a baax a baax ñun ñii bu ñu demee umra jàll ñu ko jaarale si moom dafa donc képp ku mu intéressé rek nga jéem a rattaché wax moom bi ki topp rek bala ñu ko fàtte bala ñu tëj Chérif waa waa Dieng ñu ngi bind ay texte nee nañu sa kàddu bi ñu digoon démb bu ko fàtte. Ah. waaw kay jërëjëf. asalaamaaleykum. yaa waxoon ne dig ma ne kàddu kàddu bi mooy istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaran yursil samaa alaykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina lu ca ko wa yaj'al lakum anhaaran wa yaj'al lakum jannaatin wa anhaaran maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaaran boo demee ba laa yi ja jeex fu waaw ba fa laa yi waaye li ma ci bëgg a wax mooy istaghfiru rabbakum booy jéggulu sa borom yàlla ne di ci amee doom ku doom tëdd yàlla ne dem dem ci gudd mu ne dinaa leen wàcceel taw bu barke seen jardin yi dinaa fexe ba mu naat seen lépp dinaa fexe ba dox lu tax bu ni leen maa yaakaar man yàlla ma jéggal leen xam nga kii bëgg na ma jéggal ma jéggale moo tax boo bëggee lim bi ma waxoon da ngay di jël six quatre cent quarante bariwul six mille quatre cent quarante astaghfirullah dégg ngeen six mille quatre cent quarante astaghfirullah ku ko mën suba ak ngoon ku ko mënul nga def ko benn yoon ci journée bi waaye nag boo jikkaloo yàlla bi jikk yàlla jikkal la te defarul sa affaire te pour mu defar sa affaire boo jaarul ci yonent bi du jàpp moo tax wa babullahi yuhibbuhu ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم kenn mënul dem ca yàlla wala nga am fa dara te jaaroo ci yónni moo tax 500 salaatul faat yi nga koy boole 600 400 6440 astafirullah gannaaw faatiha nga def 6440 astafirullah soo yeggalee nga teg ci 500 salaatul faatiha ku mënul salaatul faatihi nga teg ci rek 500 alaatu salaatu ala nabi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waaye nag ñun ci jaan yi salaatul faatihi lañ na nga saxoo ren ku ko ci saxoo wallahi di nga gis yokkute ci sa biir ak sa bitti di nga yëg ne it jubóom nga ak yàlla loola tëwoon it yàlla ko yombal. 6440 astafirullah ak 500 salaatul faati yi mu dee taalibe bu jàpp tarixa bi la soo jàppul tarixa bi nga def salaatu ala nabi bi nga moo tolloo aaya bi yàlla di wax ni inna alladina amanu wa amilu salihati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan xaalidina fiha laa yabxuna anha xiwalan قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم وإن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عمل صالح بوبو وطلعوا 500 mooy secret aaya bi mooy yokk bi mooy teraangal aaya bi moo tax ku saxoo 500 salaatul faati wala 500 salaatu ala nabi yi nga mën jiital nag faatiha 6440 astafirullah ren nga déwén manqué te woo ko benn bëccëg wala benn guddi yaa xam foo ko mënee ci journée bu dee jigéen boo amee règle defal boo amul règle defal boo koy def na fekk rek nga yor jàpp même boo amee règle demal jàpp ni ñoo def ko ndax istighfar bàkkaar amu ci salaatu ala nabi passe partout la foo ko dugal mu dem dafa même jigéen bu gis rek sax defal boobu bokk ci salaamaaleykum wa rahmatullah li tax sax ñu tënk ko mooy temps bi moom itam parce que 3 heures ñu wax war ñu ay nit ñëpp kon ñu tëj ak ñu ngi rek incha allah waaw jàpp waaye ñëpp baal ñu wolof nee na ku am nga ñëw ku ñu du dëkk xaaji Ramadan ñu fii moo ko waral mu jàng ndax moo jàngal xale yi na jàng xam ñu jógee wax dëgg yàlla fu ne fu ne mën na ko jàng El Hadj Omar Al mën na ko jàng waaye kii imaam ratib la ca ren imaam yëpp nag buñ toogee imaam dafay gan moom lañ war a tere terale mbir mi ndax nit mënul joxe lu mu am kon ñun ñëpp dara ci xaaji Ramadan ba imaam yi fi nekk borom xam-xam yi terale nañ ko imaam jikko pour mu jàng xatmul Qur'an buñ paree nag bu kenn ñëw fii naan Chérif ñaanal kii ñaanal kii ñaanal maa ngi leen koy ñaanal xam nga lu tax billaahi wal kitaabi lu alquran mën na fay dara mënu ko te Thierno Bachirou mii sama kilifa tey ci suuf ba tay yi toog na ma war a ñaan mu ne ma ah ñaara fi nekk de ñu bàyyi xatmu bi te nga ñaan te buñ jàngee xatmu bi dootoo nga xat mu dara du tege ci kaw ma ne ko léegi jàng xat mu ma préféré bañ a ñaan moo tax Cheikh na Bachir buñ jàngee xat mu boo ñëwee di ñaan ak doy ñaan jugal fi carrément li mu yor jugal fi ñaan nañ ko pare nga naan ñaan lu ñuy ñaan nga lu mu mënta jëriñ kenn du ko jëriñ kon nag maa ngi ñaan ñun ñëpp unanimité wala shérif ñaanal wala imam ñaanal ñun ñëpp nañ ñaan yii di xat wala Alxuraan bi ñu paqueté suñuy soxla def ko ci mu ëmb yéene ci xol la nekk kenn ku nekk li nga bëgg rek yéene ko bu imaam di jàng rek waaye nag bul wax be ki nga dendee di ko dégg nga waaye da waxoon tafsir kay tafsir na dafa dem ak ñuy tabax mu léegi waaj naan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na ma may jabar yàlla yàlla na may jabar yàlla yàlla na ma may ne ko yow jabar rek ne ne ko mooy sama tax ñu doy loo ñaar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 bismillahi irrahmani irrahimi qul audu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq min sharri ghasiqin idha waqab min sharri nafathati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasad bismillahi irrahmani irrahimi qul audu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas bismillahi irrahmani irrahimi sadaqa allahu mawlana al-'azim wa ballagha rasuluhu al-karim wa nahnu 'ala ma qala rabbuna ربنا ورزقنا اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعديل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيادة لسان أو وقوف بغير وقف أو دعاء بغير مدعى أو بغير بيان أو مد أو تشكيل أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فكف منا على التمام والكمال والمهذب منه إلى الحق فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تفتننا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عنا من الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر سؤال من كريم ونكيل من مكيدنا وبيض وجوهنا واعتق رقابنا يوم البعث من النيران وأمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا بوسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان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 وفي القبر مخلصا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل بالحق من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالالف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالذاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال نور وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالقاء بحرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف هداية وباللام نصر وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصفا وبالحاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم إنا دعوناك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنظرنا بعين رحمتك يا رب العالمين فعمم سلامتك يا حي يا قيوم ويسر لنا هذه المشروعات التي أقبلت إليها بلدتنا الحبيبة في السنغال يا رب العالمين اللهم احفظها من كل من كل شر يا رب العالمين اللهم إنا نعيذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم احفظ لنا بلادنا هذه واجعلها بلدا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللهم أبعد عنا الشياطين جنهم وإنسهم يا حي يا قيوم في هذه الانتخابات يا رب العالمين اللهم اجعلها تمر بسلامة كاملة يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك أن تحقق لنا جميع المشروعات العلمية منها والعملية وجاز عنا شيخنا هذا خير الجزاء يا رب العالمين اللهم جازه خير الجزاء اللهم حقق بالزيادة آمالنا واكرم بالعافية غدونا وأصلنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا يا رب العالمين اللهم إنا حصلنا أنفسنا وحصلنا بلادنا السنغال بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ودفعنا عن أنفسنا ودفعنا عن بلادنا السنغال بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام اللهم إنا نسألك أن تحقق لكل حاضر مشروعاته العلمية والعملية وما بغى يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم حقق لكل منا أمنيته في الدنيا والآخرة يا رب العالمين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 Chérie dit je remercie beaucoup les, euh, nos frères maliens qui sont là parmi nous, Alpha et Boubacar. La montre que vous, que vous lui avez offert hier, c'est ça qu'il c'est ça qu'il a dit aujourd'hui. Il vous dit jërëjëf, ça veut dire merci beaucoup. Waa kay kon. Laisse-moi. Attends, attends.